waaw asalaamaaleykum sëñ Modou maa ngi lay nuyu di nuyu waa group bi yëpp ndongo lu ñuy wax Moustapha Messere waa man de moom wax dëgg dama ne woon sax mbirum projet bii di assainissement OUG bi man dootuma ci dootuma ci wax waaye il ma indi nag ay leeral nit ñi comme yàlla def na ñu ëpp ci nit ñi dañ may diglu ma yëkkati sama kàddu wax lan moo ci conséquences yi ak lan moo ci njariñ li quatre-vingt pour cent yi ci Touba xamuñu njariñ li waaye quatre-vingt-dix pour cent yi ci ci Touba yëpp xamuñu conséquences yi te am na ay conséquences am na it ay njariñ Touba nag dañoo dañoo dugg ci ruq bu ñu leen dugal mooy ñoom xamuñu dara jànguñu loolu dañ nu koy fara wax faral la wax moo tax projet bii fi mu ne li ci nit ñi xalaat ñaari yi képp la mooy ndoxum taw ak fonce yi ñoom ñaari yooyu moo ci seen yitte Touba ak Mbàkke day ñaari dëkk yu dend waaye nag day ñaari commune am ñaari meer maire bi ay carte teg ko fi maire bi ndigal teg ko fi Touba yëpp nañ ñëpp xam ne moom amagul indépendance waaye téewu ko doonit it spécial dafa bokk ci ab région muy région Diourbel gouverneur bu région bi yilif ko ci côté administration bokk ci ab département muy département Mbacké préfet bu préfecture bi yilif ko waaye nekk ab commune d'arrondissement sous préfet bu commune d'arrondissement bi yilif ko boo demee ca maire ba administration ak état civil yépp nga fay fekk kon doxe nu réew mi ni muy doxee Touba tënku na ci loolu projet bii nag dafa doon projet boo xam ne ci wàllu assainissement bokk na ci li état yoral ab population Touba war a jot wàllam ni ko réew yu ni ko dëkk yu bare jote ci régions yi ak département yi Touba war a jot wàllam ñoo ngi ci sant bu baax kilifa yi ci seen taxawaay ak jéego yuñ ci dox jiital ci sëñ Basiru moom sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne moom la sëriñ bi chargé woon loolu ngir mu di ko dox ba mu sotti kon première bi rek mooy diggante Touba ak Mbacké projet bi projet Touba la waaye nag waruñoo sàggan nun waa Touba ba waa Mbàkke ëpp lañu ci procès bi bénéfice yi li ñu naan mooy njariñ li bàyyee Touba li naan ay conséquences njariñ li mooy Touba ak Mbàkke liñ waroon njëkk a def mooy signé li ñuy wax convention ñu koy wax intercommunalisation ñaari maire yi ñoo ko war a signé première bi rek loolu amul Abdou Mbacke Ndaw mi nga xam ne xamal nañ ko procès bi nag moom dafa daal di xam ne lii yaa beaucoup de milliards te gis na ne ci buum gi képp la mën a jafando ngir Mbacke ëllëg naat mu ne ci ñooy looloo waral nag Mbacke ci côté moo ñu ëpp moo ci ëpp bénéfice ci Touba dinaa ñëw ci bénéfice yi moom fa saasi rek dañ ko daal di verser soixante dix millions procès bi jox ko soixante dix millions. ngir mu def délibération bi ngir mu jot ci suuf si xam na ne yaa beaucoup de milliards te it ay njëriñ ngi ci biir projet bi mu def yitte ngir li nga xam ne mooy jóge Touba bu ne ay matière rek de ak ndoxi force de bokk na ci li gën a mën a defar ab dëkk bu buñ ko jëlee ci xam-xam léegi bu fekkente ne Touba projet bi daf fee nekk première bi ñuy bénéficier mooy fokk mu am usine de pompas usine de pompage mooy pompe matière bi ci biir fosse yi mooy pomp matière bi ci biir kanaal yi di ko évacuer muy génn di dem waaye fam dem dañ koy séparer Mbàkke la war a teere ji dañoo war a ber ndox mi nii ber matière bi nii ndox mi li muy njëkk indil bénéfice ci waa Mbàkke dana leen permettre ñu mën a def li ñu naan culture maraîchère maanaam mbay mbayum noor ni ay puut ak dëkk yu baree baree bari ay puutaak ay mbooraak di bay ay meññet ay lujum di ñu ko jaay si ñun waa Touba Mbàkke day daal di am loolu moom mën a bay li ñu naan culture maraîchère di ñuy jaay ay lujum ñu di ko lekkat ndax ku ne xam na ne meññet bu amee mbàkke ay lujum ak yooyu mbàkke duñ ko le duñ ko consommer ñun lañ koy jaayaat ñun waa Touba. te li génne meññet mi li tax meññet mi naat ci ñun la jóge ñu évacuer ko waa Mbàkke ñu transformer ko defar ko ñëw jaayaat ñu ko ñu koy lekkat premier bénéfice ngoog deuxième bénéfice ba matière bi dañ ciy defar brique yaa ngi seetaan ay documentaire ci France 24 ci ay Corée ay ay Espagne ak euh, non ay ay ay Chine ñoom bokk na ci seen birig yi ngay seetaan bâtiment bu rafet matière yi ci lañuy ñuy defar seen birig yooyu di ko transformer di ci def ay birig mën naa liggéey lu ne waaye engrais yi da ciy génn ginnaaw engrais it mën naa permettre tey waa Mbacke commune Mbacke dootu ñu jëggaani électricité dañuy am courant kon ñun waa bu buñ xool ci rek ne ndox mi lay génne fii muy ndoxum taw meeg fonce yi di ko évacuer ji boo dee xool lam sànni Mbàkke lépp ay njariñ la te Mbàkke da ciy bénéfice wu ndax waxuma la branchement yi nga xam ne gratuite la Mbàkke war ko bénéfice woo waaye day permettre liñ naan édifice public yi police gendarmerie japor li nga xam ne ay lieu public la te nekk ci biir Mbàkke dañuy daal di am ay branchement gratuite loolu Mbàkke da ciy bénéficié wu waaye li nga xamante ne mooy usine de pompage bi mu nekkee biir Touba di pompe li mu sànni bu xasee ba agsi Mbàkke Mbàkke day tiim projet bi soxlawul muy am usine de pompage day daal di jàll dem fekk Touba lañ pompe mu ñëw mais Mbàkke day tiim projet bi usine de pompage boobu nekk Touba nag dafa am ñaari conséquence bi ci njëkk am na foo xam ne buñ pompé wut du jàll mooy waral dëkk bi di am xet fu ne ci ndakaaru da ngeen dox ba mu yàgg sakk say bakkan doo mën a noyyi ndax xet loolu moo ko indi ndaxum ndox ci kàmb muy ndoxum fons bokk ak matière ak lépp loolu mara day taale nga nekk ci biir jumaa ji wala li wër xet gi di la sonal kon il faut que ñu leeral nit ñi bokk na ci yi tax sëriñ bi wax na nañ ñu leeral ni liggéey bi doxe conséquences yi la xam ak njariñ yi te nanguñ ko leeral conséquences yi ak njariñ yi beneen bi ci dollee ko dañoo waxoon kilifa gi fi ñu commencé ak fi ñu yem waxoon ko quartier yi mais dafa am quartier yu dugal te bokkutoon man na ma laa citeel Daaru nam bokkutoon ca premier table ba deuxième bi Daaru Minam a ngi ci biir lu tax Daaru Minam dugg tañ génne woon ko affaire u xilaafa la wala lan tawféex gii ñu génn lu tax ñu génn tawféex xilaafa ga dafa nekkatut wala lan yii bokk na ci yi sëriñ bi bëgg ñu leeral ko ko mooy nii liggéey bi di doxe fi nu waxoon fi la ñu commencé jumaa jég lu ko wër lu tax ñu bàyyi ko dem commencé feneen ak ñaata village lañ décidé ci dëkk bi nii moom lañ def ci wàllu assainissement donc ñu ñëw ci usine de pompage léegi bu fekkente ne usine de pompage yi bu dikkee ba ak si Mbàkke day tiim procès bi Mbàkke du soxla muy am usine de pompage léegi nag Touba am na foo xam ne boo ko pompé wut du dem loolu mooy waral xet di des ci biir dëkk bi beneen bi ci des usine de pompage am na ñoo xam ne biñ ci gis biñ defee seen gëstu gis nañ ko ca Canada te ku ne xam ne ne Canada moo ëpp ay moyen Sénégal lépp moo ko ko ëppale te wax nañ ne lu toll trois kilomètres et quelque ci usine de pompage yi fi muy nekk ñi fa dëkk dañu am problème mu feebar tuberculose ba maara day taali ay bakkan sax mën na ca lor ndax ñu ngi calculer loolu ñun population wu Touba ak procès bi lan la jural Touba ci ay njariñ après procès bi lan la Touba di bénéficier woo ci procès bi commune bii ñu nekk nga xamante ne bii amuñu sax lañu ñu collecté seeni fonds lan mooy njariñam lan lan la ko procès bi di indi lum mu ciy woo loolu itam lañu ñu war a posé question la ñu ba tey waxagun ñu ci dara waaye ñi nga xam ne Mbàkke da ciy bénéficier lu ci mel ne courant mel ne engrais mel ne ay briques mel ne man cee am possibilité defal culture maraîchère Touba nag mënoon naa bénéficier woo ci lii waaye Touba dañ ko xas sol ci mbedd moo xam ne. njariñ dana ñëw waaye ay intérêt day tax njariñ li génnaat dëkk bi dem ñeneen jariñoo ko waaye ñun dañ koy dégg rek duñ ko jariñoo commune bi dafa war a bàyyi lu xew rek mu ne ñun yëgaluñ ñu ko xamuñu ci dara waaye ndax buñ leen ko yëgalee préparé nañ ay ndaw boroomi xam-xam yoo xam mën nañoo exploiter lii wala mën nañoo fexe ba lii des ci dëkk bi amal dëkk bi njariñ ndax dëkk bi préparé nañ loolu même bu dëkk bi préparé loolu ana ndaw ñooñu mën a xeexal dëkk bi tey ba procès yi bu duggutee ci dëkk bi ñu xool la cay njariñ des ci dëkk bi la cay ay conséquences ñu génn ko dëkk bi waaye bu dara ñëwee ñu ne ñoom yëguñu yëguñu ci dara ndax buñ yëgoon mën nañ ko exploité ndax dëkk bi am na ay gone yoo xamante ne bi ñii ay ingénieur lañ ñii ci domaine bu ne diplôme nañ ci ba nëgëni tuubaa di am problème mu éclairance publique am problème mu assainissement am problème mu santé am problème mu ndox mu ñu naan te ba nëga ni boroomi xam-xam a ngi fi tëdd di taxawale yoo xam ne ci dëkk bi seen domaine yëpp lii lañ jàngi woon ba doon ci ay spécialiste te kenn yaatalu leen wala mu waxtaan ak ñoom ñu toj seen xam-xam booba tasaare ko ci dëkk bi mu mën a am développement boo gisee bindoon naa fi benn benn benn benn benn téere teg ko ci loxob sëriñ Cheikh Baara Mati lay ñaar yi rek laa cité woon bi ci njëkk mooy éclairage public waaye damaa jëloon éclairage public bii ñu def tey muy lampadaire mooy énergie solaire nga xam ne Touba dootuñu dépendre ci facture bi dafa seer sëñ bee koy fay wala état moo ñu koy fayal. beneen bi ci tolloog ma duggoon ci li nga xam ne Touba amagu ko mooy créer emploi c'est-à-dire que ne Touba li mu occupé ci suuf yoonu murit amul fenn fu ko occupé mais suuf yi ci bari bàyyi nañ koy mu booy gental nañ ko yii dagg nañ ko jaay suuf yaa ngi tëdd. corniche yi boo ci jaar da nga fa wàññi minimum corniche bu ci nekk cinquante à soixante personnes yu taxaw bëgg a liggéey ñu ci bari ay baykat la waaye amuñu luñ def ñooñu tey jii bu fekkonte ne préparé nañ leen créer emploi mën nañu dem ci tool yi bay suuf su ci nekk techniciens yi xool suuf si lan moo ci mën a meññ ñu créer emploi di fay gone yooyu ñuy dunde seenu ñaq mais am lu ci ruuse loo xam day duggaat ci compte yoonu murit xalifa général de murit bu soxla un tey day dem automatiquement fekk milliards yoo xam ne dañ koo bay tegal ko ko fa waaye du doon addiyee duñ xaar kuy ñëw di jëbbali si daayira milliards bu fay tegalee doon wala milliards yu fay tege mu dugg ci keesu keesu dëkk bi dana ñu permettre bu état soxlaa ceeb day wax ak yoonu murit yoonu murit jaay ko ceeb bu soxlaa diw dugub bu soxlaa mboq bu soxlaa nangam mais toujours danañ am sous économique boo xam ne day desaat ci dëkk bi sunu maam yeeg sunu yaay yeeg bu boobaa dëkk bi dootoo dox tey jii romb jigéen ñi li ñu liggéey ñeent yi la waas jën xolli gerte suq ginaar ràbb njàmpe danañ jóge ci yi ndax danañ duggaat ci biir secteur yooyu di ci liggéey di dunde seenu ñaq ngir mën a waajal seen seen seen seen ëllëg yii laa bindoon ci téere jox ko ko waaye tey jii loolu ñu naan France daan na xiddan dem naa ba ci Sëñ Sidi Muxtaar mu présenté ma ko ma wax ko ko mu rafetlu ko waaye anamu tey jii yooyu mooy ay xam-xam yoo xam dañ ko war a exploité gis nga du problème mu sëñ bi yëg na ak yëgut ndax keneen la sëñ Muntaxa man la yebaloon ci président de la république ma dem doxi projet bii kooku kenn ëpp ko information mu dox ci ba procès bi sot kenn ëpp ko information waaye nag boo ma yónnee ma dem nga ne ma bu ma ñëwee nii ak nii lay def boo ñëwee di def nu bokkut ak na nga ma waxoon ah laaj nag lan moo tax nga soppi lii te waxoo ma ko te man mi nga ko waxut kat maa war a leeral ki moom liggéey bi ndax yoonu murit kat dëkk bi procès bi tubaal la jëm si waaye nag ki moom murit yi muy sëriñ bi war na cee am xabaar bu leer xam lan moo ciy conséquence ci dëkk bi ak lan moo ciy njariñ ci dëkk bi ñoom lii lañ lii la sañ Bass posé question directeur bi ngir mu leeral ko ci te ba nëga ni directeur bi tontoogu ko ci yii du problème woo naa la wuy woo ma wala nangam waaye leeral ma lii coow war a ci am directeur bi ni mu war a def mooy daal di ko koy leeral wax ko ne ko fii lañ commencé ak fii lañ am ñëpp ci nit ñi nag léegi dañ dut xool maanaam lan mooy conséquence yi problème bi Touba am mooy buñ ne assainissement rek ñu jug taxaw ndax ñoom dañuy li ñu bëgg gis rek maanaam mooy assainissement bi kat mën nañoo permettre tey ji fonce yeeg ndoxum taw yeeg nangam ak nangam déedéet dafa am loo xamante ne bi lu baax la ci biir muy matière bi génn waat ci fonce yi di génn di dem lan lañ ci mën a exploiter ak fu mu mën a jëm te ba nëgë ni nit ñi xalaatuñ ci waaye du problème mu sëñ bi yéeg nag yëgut wala sëñ bi nangam déedéet problème bi mooy procès bi lan la dugalal Touba lu ci Touba di bénéfice woo ak lan la ci Touba di ñàkke ak lan mooy conséquences yi ci population bi dëkk fi projet bi jëm si